c'est vraiment difficile condition yi may yi may dund actuellement ci entreprise bi. Mhm. xam nga pression bi nga xam ne donc euh, euh, employé yi ñu ko ñu ma koy teg instant bi pour ma pour ma bi sax si c'est difficile parce que doy na waar ak Covid bi nii xam nga. Mhm. Euh, rentabilité yi ñu doon am amatuñu ko xam nga euh, salaire yi nga war a fay fii war a fay fële vraiment c'est c'est c'est difficile moo tax inter actuellement bon j'ai la tête bu non c'est li may dund actuellement mënoo ko sax mënoo ko sax mënoo ko sax comprendre mais nag bon on va essayer def. mais mais booy lan la lan la. waaw mais yow quest ci que tu fais yaa ngi nii soluloo masque ah ci période Covid 19 bi nga nga ñëw bàyyi nit ñi bu ñu taxawee ngeen dugal seen bopp di wax ak nit ñi ah tu ci lan nga fiy def. mais yow taalibe nga. ah mais regarde ana sa mask takkuloo mask ah solo loo dal heure bi waroon na fekk yaa ngi jàng pour mun a tekki ëllëg waaye nga nekk ci àll bi di taxawaalu naan da ngay yelwaan ah mais se c'est des lii lan la. léegi nag Sénégal nan lay avancer nan lan lay avancer. Ah, mais Fourcon. et eh, tu dégages ça là. et dégage jóge fi. non c'est c'est c'est c'est vraiment difficile ah. c'est bii waroon na fekk. mu nekk ci di jàng. pour mun a tekki ëllëg. Ah. man tey lii ma am tey. ah fekkoon na yelwaan du ma ko am. oui mais c'est c'est c'est c'est compliqué.